Ibou Diaw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Ibou Diaw nga nekk porte-parole collectif des contractuels du Sénégal déjà nga wax ñu euh, seen kuréel bi naka la juddoo si yaatal exactement. waa kuréel bi nag dañ ko créer parce que dañoo gis benn instant te ne syndicat yi nga xam ne ñu ci lañ bokk euh, dem nañ ba gisatuñ ci suñu bopp ndax dañoo dem ba une préoccupation yi nga xam ne moom lañ waroon di jël jëlatuñ ko moo taxoon ñu ne nag nañu toog ñu waxtaan ñu xool nan lañuy dajalee créer collectif pour mun a jël ci ay préoccupation ñaxtul ko suñu bopp loolu moo indi jublu jublu collectif bi. maanaam yéen collectif bi ñi si ñi si nekk euh, déjà bokk ngeen si syndicat yi ba noppi wala. ci ay syndicat lañ nekk. ngeen nekk ñëpp si ay syndicat lañ bokk mais gënu gisul suñu bopp si syndicat yooyu. ba fiñ tool ni nii yéen a ngi ci syndicat yooyu. ba fi ñu toll nii génnaguñ si syndicat yooyu. collectif bi sax boo xoolee bu ñëwee dafay gën a dëgëral sax syndicat yi. Mhm. parce que syndicat yi dañoo dem ba fii tëf fi ñu toll ni ñoom ñu ne nag ñun dañ créé collectif boo xam ne collect contraction yi nga xam ne ñu dajale leen ñu toog mën a ñaxtu suñu bopp. Hmm. xanaa da gis ni syndicat yi moom dañoo dañoo jege nguur gi wala dañ leen deful priorité wala lan. waaw boo du jege nguur gi sax parce que. dem nañ négociation ak nguur gi mais soo xoolee chaque fois négociation bu amee les contractuels ils viennent en dernière position dañuy régler seen affaire étatique ba pare ba ñu octroyé leen ko ñu ñëw si ñëwee bu ñëwee à la bu ñu waxee ñu ne ana wàllu seen contractuel yi ñu soog a delluwaat négocier pour seen contractuel donc euh, moo tax ñu ne nag euh, dootuñ toog di ñoom ñuy xeexal seen bopp bu xeex bi jotee ñu ñooy jël jàppale leen ñu xeex bi ba mu ba bañ am gain de cause. loolu loolu comme yan syndicaliste ngeen di waxal exactement yow Ibou. ah. comme yan syndicaliste ngeen bëgg a waxal. parce que yéen yéen parce que fédération bi. waaw ànd parce que boo xoolee ñaari entité yooyu ñoo fi nekk. te majeure partie contractuelle ci ñaari entité yooyu lañ bokk. Mhm. ndax fédération dafa regroupé ay syndicats yu bari. Mhm. ànd gësëm regroupé ay syndicats gisoo leen daal seen bopp si ñoom Mballo Dia Thiam ak ñoom docteur Cheikh Seck. gis ngeen ni daal ñoom euh, bu ñuy xeex euh, dañuy fàtte. Euh, contractuel yi. waaw léegi kon yéen seen seen collectif bi ñi si nekk nekk ay contractuel mooy ñi nekk si hôpitaux yi wala ñan la exactement. contractuel yi nekk hôpitaux yi la. di liggéey comme lan. bon comme paramédical yeeg. am na ay paramédical am na ay administrateur am na corps yëpp a hmm. ñu ngi si biir collectif bi. Euh, kañ ngeen ko sos exactement. léegi moom na ñaari weer ñaari weer. mais mais yéen naka ngeen xalaatee ni fii fi syndicaliste yi tële yéen collectif bi di ngeen fa mën a amee dara. waaw xam nga collectif bi moom dañ ko def pour dénoncer li nga xam ne moom la syndicaliste yi tëlee. Hmm. mooy li nga xam ne moom la état bi mooy li ma ko waxoon ci biir dëkk état bi li nga xam ne moom la jox jox ko tous les agents de santé. Hmm. biir paiement bi dafa am ñu boddi. Hmm. ñooñu ñu boddi nag lañu wax ne waruñu leen woon boddi te négociation yi boo xoolee eh, syndicaliste dafa am koo xam ne sax ñun lañu wax ne dañ fo péché. waaw dañ fa dañ fa daal péché daal ñu ko mën a ooyee waaw donc loolu moo tax ñu ne nag léegi. ñun nañ jël suñ destin en main d'accord léegi actuellement euh, seen mer bi ngeen meer lan moo ko waral lan ngeen bëgg exactement fi ñu toll dañoo bëgg daal mhm. ñu harmoniser maanaam ñu fay ñëpp prime de logement parce que prime de logement mënoo dugg ci hôpital ne kii mooy def lii moo mérito prime de logement kii lii lay def mérito prime de logement alors que prime de logement boobu Macky Sall ci boppam président de la République moo ko pour que ñu fay ko ñëpp léegi nag ñu toog ñu gis ministère de la santé génne fond bi ministère des finances génne ko mais ministère de la santé ci biir paiement bi mu am indi ay xaajarle ci paiement bi léegi nag moo tax tey ñu ne nag mm-hmm. dañuy ñaxtu pour que loolu yegg ci kaw ñu naam borom réew bu ko yëgee xanaa dina si indi saafara ngeen mën a jot seeni prime de logement ñu jot suñu prime de logement comme tout le monde à part parce que hôpital risque kese la ñu xam nañ ne hôpital ku koy liggéey yokk nañ prime de kii vingt joxe prime boo xam ne muy commencé commencé cinquante mille deux mille vingt quatre mu dem cent mille waaye léegi yow nga ne léegi ci biir prime de logement boobu naa jël lii fay leen ko bàyyi yi te ñooñu yëpp ñu bokk ci benn liggéey bii respiro léegi à part euh, prime de logement bi Ibou euh, lan ngeen di réclamer encore lan moo leen soxal daal euh, ci conditions yi nga xam ne yéen a ngi koy liggéeyee te baaxul bari na xam nga bii dañ ko jël rek comme priorité. waaw li ma bari na hôpital moom contractuel boo xoolee. Mhm. toujours si ay difficulté lañ nekkee surtout seen prise en charge. Mhm. ba pare statut contract dafa war a am statut boobu dañ ko war a génne. de beneen bi boo xoolee par exemple tey kuy ministère de la santé su subaa nga am neppat mais tey kuy recruter ci biir hôpital contractuel doo am neppat te boo duggee ci hôpital yi ñu baree ngi toog amuñ neppat ñuy feeñeent ñu di leen bàyyi te départ boobu état moo koy joxe donc boobu tamit bëgg nañ vraiment enveloppe yooyu ñu yokk yeneen tamit mooy vraiment buggoon naa ko wax sax dama koy mooy subvention yi ci hôpitaux yi. Mm-hmm. na état dimbale hôpital yi yokk seen subvention yi. beneen bi mooy dañ bëgg lii bu paree ñu intégré ko dans les bulletins de salaire parce que loo xam ne lu war a dugg ci bulletin de salaire la revue de dugg ci bulletin de salaire donc yooyu yëpp ñu ngi koy lever contractuel waaw euh, léegi euh, ngeen takk tey ay brassard rouge ci hôpitaux yi à part euh, loolu nan la ngeen fas yéenee def lan mooy prochain plan d'action bi pour ñu taxaw ci seeni jafe-jafe bi njëkk a def daal mooy defoon nañ point de presse tey ñu def mercredi rouge léegi nag buñ évaluer journée tey bii dàquñ sax ba demande marche nationale hmm. marche nationale pour kañ ngeen ko fas yéene def. bon jàppaguñ date bi. mais buñ ko jàppee xam naa dinañ leen ko yëgal. waaw léegi tey jii ci seen situation bi ngeen di dund ban appel ngeen ci lancé njiitu réew mi. appel bi ñu laaj daal mooy njiitu mu xam ne njabootam bi nekk Kanté am na ci ñoo xam ne dañ leen a boot di ci prix de logement ñu bëggum vraiment mu wax premier ministre am wax ministre de la santé ñu corriger loolu. ba nga xam ne dinañ ñemale ñëpp ndax hôpital moom dafa sensible ñëpp a war a tollalee li ñu war a am maanaam prime de logement boobu ñu ngi ñaan président de la République comme moo ñu ko joxoon gis ne dund gi dafa métti coût de la vie cher na mu am indemnité yu jox ñu mu wax ministre de la santé mu harmoniser ko fay ñëpp prime de logement parce que ñëpp a ko soxla waaw ñuy xaar fi too toll nii fan yii rek euh, gouvernement bu bees yéen en tant que liggéey kat lan ngeen di xaar ci gouvernement bu bees boobu. waaw ñu ngi leen di xaar a ce que ñu jël en compte rek suñu préoccupation yi. Mhm. ñun tey bu ñu sañoon sax balaa gouvernement bees bi ñu régler suñu problème mais comme gouvernement bees bi ñëw bu ñëwee état mhm. mu jël en compte suñu préoccupation yi jëm koo régler. ma lay xamal it ne contractuel yi. mot ëpp nañ mii i mhm. ñu ngi dem élection te kenn ku nekk ñun yaa ngi sa carte électeur sa biir kër am na ay électeur mhm. donc yaakaar naa lu taaw tout diir ah yéen a ngeen nappe daal maanam bu ñu deful li ngeen bëgg ngeen ah ñu téye ñoom élection moom am nañ droit hmm. <laughs> na waa de li nga wax. léegi léegi fi toll nii dund bi cher na gis nañ ni dund bi dafa cher de trop au Sénégal rawatina fii ci Ndakaaru en tant que liggéeykat aussi euh, en tant que sénégalais euh, lan nga ñu si mën a wax. dund bu cher bi moo waraloon sax président de la ko laajee mu ne yokkal ñu ay prix yokkal ñu ko pour que vraiment ñu mun a jël en compte dund bu cher googu léegi nag bu ñu ba ci biir. Mm-hmm. moom mu yéene ñu ko moom mi njiitu réew mi jox ñu yaakaar naa ñi toppoon ci moom dañoo waroon ñëw rek appliqué waruñu woon ñëw sax di si ubbi si xaajal mm-hmm. ndax dund gu seer bi moom nga nekk ministre rek nga nekk blancardier nga nekk infirmier ñu ne si ñëpp xam ne métti na waaw léegi nag ñun ñii ci hôpital yi nag ñu contractuel ci ñun la gën a métti fa waaw parce que xam nga nga boot benn famille wala ay famille ak salaire yi ni mu toll ñu yëkkati ay prime doxlof pour dimbali la surtout si logement ñu new ne la yow doo ko am diw koy am yaakaar naa ne xaajal la fa la commencé waaye daal métti na métti boo xam ne président de la république muy père de la nation xalaat ne dund gi métti na mu octroyé ñu loolu pour jàppale ñu yaakaar naa dañ ko waroon jox ñëpp waruñ si xaajal na kenn. Mm, xanaa yi dafa baaxul. ba ngeen salaire contractuel muy loolu xam nga hôpital yi ba rek si indemnité de logement bi ah, mm. waaw noo xam nga boo duggee si hôpitaux yi. hôpitaux yi ñooy fay contracté. salaire yi mooy loolu. demeewul noonu à tel point. donc li ñu doon ñaan sax mooy suñ munee dimbale hôpitaux yi ñu recruter ñëpp dugal fonction publique moo gën. ñu wàññi charge hôpitaux yi. te yokk subvention hôpitaux yi. mais pourtant Ibou nguur gi jëloon na ay mesures de pour wàññi dund gi eh, muy location bi muy yenn denrées eh, de première nécessité yi xanaa loolu da ngeen ko sentirul yéen seen côté. ah mais loolu moom Sénégal ñu ko sentir bariwul de. Mhm. moom bu ñu ko wàññee fii jëlaat ko fële. loolu moom ñu ko sentir mais Sénégal yëpp daal yaakaar naa. Mhm. Hmm, bariwul de. yéen yéen aussi sentiroo leen ko seen côté. ñu de sentir guñ ko. voilà Ibou Diaw kon maa ngi lay jaajëfal si tontu bi nga tontu suñuy laaj. jërëjëf man maa leen di sant di leen gërëm. Mhm. may fàttali ni Ibou jaw yow yaay porte-parole collectif des contractuels euh, du Sénégal ñu lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi jërëjëf. merci.